mbokk yi ni baye xel fu mën nek ci aduna bi mo xam ñi nek ci réew mi wala ñi nek bitim réew ñoo ngi leen di waxati alaykum wa rahmatullah gina bi ñu sant te yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi la ka jaajeufal mbolé mbokk yi ni baye xel. di am mbekté lool nak ci appel yi ni gis ak message yi xeyna jot gi mooñ ko dun may ba duñ mëna tontu yépp rek waye ñi ngi leen di baye xel bu baax ñu nit. te jii nag dañ leen fas yéene indil partage ak yéen benn secret boo xam ne secret bu am solo la am na solo ci wàllu wocc am na solo ci wàllu delloo jigéen ju fay am na solo lool ci wàllu tàggat muy boole ay nit képp koo xam ne nii ñu koy waxee defee nga ko nii xëy na nag benn yoon lañ koy indee mooy ci wàllu noob gi yon di nañ ko indi ci watch. wooc boko ko ki watch ci wooc wooc nak moy nit ku dem nañ ko indi tamit ci walu jigen gu fay nga bëgg ka delloo si nga am soxna soxna ci fay dem seen kër nga bëgg ka delloo si wat mu ñëwaat gaaw na ci lool nañ ci dikk inshallah waye bala ñuy sor rek dañ lay wax yow mi nga xamne ne da nga bëgg def lu set wala nga bëgg def lu xaar dañuy def xaar a distance fo mëna ci aduna bi ba ñu contacté ci numéro bii rek incha allah rabbi dees na la defal listixaar gu leer naññi incha allah ñi nga xam ne dañu bëgg a xam seen sarax wala seen biddiw wala seen rawxaan ba tey buñ ñu contacté ci numéro bi incha allah rabbi dina leen ci jàppale bu baax a baax a baax incha allah mbokk yi nga xam ne dañu bëgg a bokk ci groupe whatsapp bi tamit. ba tey mën nañu contacter ci nimo bi waaye nag groupe whatsapp bi ni ma koy waxee rek am na ay conditions yu ñu ciy bokk incha allah kon mbokk yi secret bi leen indil tey ñu fas yéene cee ñëw muy innahu ala rajhi la xaadirun innahu ala rajhi la ko bindee nii innahu xoo googu da nga koy yaatal ala rajhi foo googu da nga koy yaatal la xaadirul xaaf gi da koy yaatal moom it boo ko yaatalee nga jël seen ñaari tur nga def ko ci boo ko ci def nag nga defe ko xadat mooy li gën mooy nga wàññi say tur lim la jox lim bim la jox ci arab ak turu ka nga xam ne moom ngay tàggatlu lu it turam lam la jox ci arab nga boole seen ñaari tur def ko ci biir boo ko defee nii ba pare nga jéem a fexe ba kayit wi nga dem ci barab boo xam ne barab la bu baaxu am ngelaw nga fexe ba takk ko fa boo noppee nga ngay werdu lii ma la wax muy innahu ala rajihi la xaadirun moom boo ko kee lim bi nga xam ne moom la lay jox mooy lim mi ngi lay jox 779 man na nek nek 780 budé xala gi da ka xëc waye jël 779 yi moy li gën nga diko ko werdo inshallah allah da bi fek téré bobu mi ngi wondélu ci garab gi koku xalam du juk ci yow inshallah allah xam naa dinañ ci dikkaat yeneen yoon yo xamné du bok amna kon secret bi moy bi ñu indi doon tey di wax yow mi setan bu fekkee ne abonné goo ci seen bi nga abone te partage vidéo yi mu gën a yaat ndax vidéo yi ñuy dugal ci seen bi yëpp ay vidéo yi njëriñ kese la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bul fàttee abone te nga bës kolos bi ngir vidéo yi ñu dugal nga man ci jot